honorable collègue monsieur le ministre aujourd'hui lundi 11 janvier 2021 le Sénégal assiste à votre énième forfaiture après Boukhari Mouad et ak mais aussi aujourd'hui 21 janvier 2021 monsieur le ministre le Sénégal a jii lay cette déclaration solennelle d'usurpation wu Birima Mbay sa teen bi nga xamante de bu waxee ren monsieur le ministre suma la waxé ne la Birima nak dafa bëgg ci situé ci assemblée moy que ni limu wax jox leen ma am état d'urgence loi mo la ko may loi tënk na la ne la boo bëggee état d'urgence demal assemblée nationale ñu jox lako tay nga né dédét damay xol nu ma nexé fu ma soobee ak nu ma soobee ma déclarer ma def déclarer couvre-feu biir Sénégal loi ba doyatuma manam yeen assemblée tekki wu leen dara loolu nak monsieur le ministre suñu ko gisé moy que ni soit ñaari problème moy am.

concernant l'article 58 de notre Constitution. Monsieur le ministre, vous m'avez servi une réponse, mais vous avez manqué de me convaincre. Parce que bonheur, mise à jour, mise à jour, monsieur le ministre. Vous avez des techniciens Vous-même, vous êtes un technocrate, vous êtes un magistrat.

ndax majorité mécanique moo fi nekk exécutif mu nga toog fële ruum la toog day bus day bës benn bouton rek ñu votal ko li mu bëgg waaye nag am na ku ko fi fàttali sànq lu fi vaay voté fii tey daa ko voté keroog yow ma fi am la tëdd suñu loxo ndeyjoor bii nag naan cest à am na lu ko gën nañu voté loo xamante ne day nekk en parfaite adéquation ak suñu gëm-gëm day nekk en parfaite adéquation ak suñu foi mais aussi bu ñuy voté dara ñu am yàqin que ni li ñuy voté dafay dem si askanu Sénégal njëriñu askanu njëriñu askanu Sénégal la. monsieur le ministre bu fekkente ni da nga ne ma dañuy voté loi bi pour alléger pour kan la ñuy alléger ak pour lan la ñuy alléger kuy alléger dara na day fekk la ngay alléger nekk un existant déjà mais fii li ñu gis mooy que ni existant bi sax nekku fi. parce que bu ngeen nee ni fi ngeen jël tey jii fi ngeen basé wu c' est la mais la loi 69 29 bu fekkente ni réellement gëmoon ngeen ko. daa ngeen ko modifier ba nga xamanteni buy ñew fi biir assemblée nationale day nekk loo xamanteni daf ñuy servir ñun ñëpp bu fekkente ni aussi da ngeen ne da ngeen di alléger pour les sénégalais sénégalais war nañ leen ni bëgguñu ko sénégalais war nañ ne leen li ngeen di def d'accorduñ si ak yéen bëgguñu ko tey d'accorduñ si boo génnee tey jii xool assemblée nationale ni ñu ko quadriller rek monsieur le ministre ñu xam que ni nag sénégalais yi bëgguñu te yéen xam ngeen ni sénégalais yu bëgguñu ba tax ji tey jii defal ngeen ñu état d'urgence sax ngeen ñu defal tey jii assemblée nationale sax état d'urgence la nekk donc monsieur le ministre pendant que nous y sommes état d'urgence bi waxoon naa la en commission assemblée nationale dafa am ay prérogatives bu mais dafa nek nit ko xam assemblée dafa nek lo xamanteni lu ngeen ko laaj bu fekkene ni dafa jëm askanu Sénégal mu may leen ko indi ngeen fi loi d'habilitation ñu voté len ko ngeen bëgg prorogation état d'urgence ñu joxat len ko mais monsieur le ministre loi mu ngi fi nee la bo bëgge li jaaral fi ñu jox lako assemblée nationale nga wara jaar pour tay pour lan tay jii ngeen wara futti assemblée nationale boobu tout en sachant que bu ngeen ko laaj état d'urgence ba 2024 mu may leen ko parce que la wax suñu mbokk man je suis une ancienne Covid mais monsieur le ministre communication il faut nous xolat ko communication bi nga xamanteni tay di taxna bi nga xamanteni kenn ku Covid ba là muy benn biir dina ko il faut ñu mais monsieur le ministre communication bi nga xamanteni chaque jour bu il faut ñu xolat monsieur le ministre communication dañ koy désagrégé communication dangay ngay fekk ndaw ba ca la mu nekk nga waxtaan ca moom communication ba da ngay fekk nit ki nga xamante ni sama maam di nga xamante ni mu nga biir Malem Hodar toog jàngul boo xëyee toog naan ko Covid coronavirus SARS ko xamu ko nga dem fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ba nga xamante ni dinga nga dalal xelam mais aussi di nga ko may loo xamante ni dina am ay élément de langage yu muy communiquer ak ay sëtam dina am ay élément de langage yu muy communiquer ak ak njabootam. monsieur le ministre beneen question bi nga xamante ko keroog calamité naturelle calamité à catastrophe naturelle monsieur le ministre il faut nous l'air encore. je vous remercie monsieur le président